salaamaaleykum am internet yu Dakar Buzz ñu ngi leen di baax di leen siyaare di sant yàlla te ni ngeen ni toppee ci vidéo yi jógaat nañ sol sunu daal tey ñëw fii ci Kër Massar M3 seet si sunu benn yaay joo xam ne mën naa ni dafa feebar yaay la ci ñun waaye mën naa nekk it mag ci ñun wala tànt ci ñun dafa feebar amee feebar bi nga xam ne nag mooy feebaru dialyse di feebaru metti boo xam ne yaakaar naa ne. bari na lu ma koy tourné waaye di sant yàlla ci ni ngeen ñuy toppee di nu ñaanal di nu di ñaan lu ngeen nu ñaanal yàlla nañ ko yàlla boole. di sant yàlla itam di leen xamal itam gis nañ ni ngeen di jàppee ci Dakar Buzz sociale bi muy ndimbal yi joxe di jëm ci wàllu ceeb ak dëwlin ak tàndarma yi di ko jox néew di doole yi gis nañ yéen ñëpp seen yéene da ngeen ko ci fësalee kon ñi ngi ñaan lu ci waay def yàlla yàlla fay la ko yàlla yokku leen gis nañ lu baax li ngeen ciy def yéen ñëpp di ñaanal diaspora ñi fa nekk te bëgg ay kayit yàlla yombalal leen ko ñi fa nekk tam ay jafe-jafe yàlla teggi jafe-jafe yi ndax jàmbaar dawul dafa wuti doole di nuy fépp fu doomu Sénégal nekk rek ci àll bi ñu ngi lay nuyu waaye di nuyu itam suñu mbokk Gambien yi nga xam ne ñoom tam ni ko Sénégalais dundee émission bi ñu ko raw leen koy dundee di ñaan yàlla taxaw leen te yàlla jàppale leen jëlis nag feer bu doy boo xam ne tey kii ko kii mu dal sonn na di jaboot doo leen boo borom këram gaañu ñu bokk ko laaj feer bi kañ la ko dal ak nan la ko dalee soxna si maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay sant di gërëm. nga tudd. tudd Koura. waaw ah, Koura feebar moo la jàll jalis. waaw jalis lañ jàpp. loolu depuis kañ la. depuis daaw daaw avant tabaski ama jàpp. mu hmm, lay dal nan la la nan signe la def nan la dikkee ci yow. ah daa digres fa ma dénn bi hmm. mu jàpp sama dénn bi mënuma dokk mënuma def dara mënuma lekk après mu daaneel ma dem ci Kamba Renaissance léegi ni defar noonu ay kii noonu après mu commencé jalis ci clinique Fann bi laa dafa jalis booy dem jalis ñaata ngay fay ñaata koy yóbbu ci xaalis fay ko. fukki junni. ak ñetti. boo ko boolee bi fukki junni ak juróom. te doole bëriwul te sa borom kër dafa génn àdduna. sama jege dafa gaañu maa ngi yor ay xale yu ndaw xale yi amagul doole man sax maa ngi di jaay sax ba dundu xale yi waaw maa ngi yoroon lépp maa yoroon lépp maa génn fay fag ndëkku ndëkku courant bi xale bu ñu feebar maa koo faj maa def lépp. <laughs> Ah. ba yàlla doon ma am waat ci feebar bii nii essayé xale yi moo góorgóorlu joxoo dépassé rek léegi buñ taxalee xale buñ taxalee noonu commencé man damay def sagi alaraba ak ak kii samedi ma faj mu dem dem dem xaas bi jiyee taat as mu jiyee ma def ko 15 jours wari bee passé ma taw weer yi billaahi ma dugg ci clinique bi yàlla wa koo xam. mënuma dogu mënuma def dara dama dafa dimbali pour askan mu jàppale ma aw ma jàpp sama mbokk yi amul doole maa ngi nii xale mag gul mi ngi noonu. jërëjëf mbokki internet yi Dakar Buzz ñoo ngi sant yàlla baax ci eh, gis ngeen li mu te ñaan yàlla xolu muñ te yàlla gën noo dëgëral. ndax dafay metti trop boo yore njaboot gu sew màggagunu nga feebar te sa borom kër génn àdduna lépp nga ko daan def day metti nga war a daw dépasse war a daw xale yi war a fay luyaas war a faju te amoo kenn ku la jàppale day metti wax dëgg yàlla metti na nan ko jàppale bi mu baree def jalis ak léegi toog na weer deful jalis koo xam ne waroo tëbal kon yéen jaamu yàlla yi nga xam ne lu baax lu ne yéen a koy def ci Dakar Buzz social maa ngi leen ci tàllal loxo te xam ne daal ku bëgg a jaamu yàlla jaamu yàlla ku taxaw ngi nii nan ko dimbali te yàlla tax sonn na te amul doole te feebar bi ko dal jëlis boo amul doole day metti boo amee doole sax day metti xam boo amul doole xam nga ko science toog plus de un mois defoo science li muy yëg ci yaramam kenn mënu koo xam nan ko dimbali te yàlla tax lan moo tax nga jooy lan la. sama xol bi mooy ma fu ma jàppal sama waaye di sant yàlla ci plateforme boobu nga xam ne mooy plateforme Dakar bu sociale bi numéro bi di 78 601 11 11 ñu gis ni ngeen koy bàyyee xel. mu néew mu bari. wax ni sant nañ ci yàlla képp kuy bàyyi xel plateforme boobu ñu ngi lay ñaanal yàlla yokku la lépp lu ngeen jox jot nañu ko lu ngeen yónnee fadal jot nañ ko mi ngi demaat ci biir askan bi gis nañ ni ngeen jàppee ci côté dund yi ceeb yi diwlin yi ñi ngeen kenn ku ne da cee dugal yéeneem yéen ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm. tam plateforme Dakar ba sociale bi nga xam ne malaat yee ko tax a jóg nga xam ne saa bu may génn rek naa ci jël comme Jalise la. war a def jëlis toog lu mat weer deful jëlis Dakar boo social dina ko fayal mu dem defi jëlis tey tey léegi dina ko jox 65000 mu jóge def jëlis te yàlla tax loolu bu ko mënee nag yéen yéen ko jox mu jëlis la am di problème 65000 Dakar boo social comme ni mu koy defee rek képp ku mu seeti nga war a def jëlis dana la fayal benn séance jëlis ma jox ko 65000 yi mën cee dem def séance jëlis. Seydou Dakar ba jàppale na ko 65000 fayal ko science jalis tey ñaan mu barkeel le temps que vidéo bi dugg ngeen mën cee jàpp tey jaboot nga di néew di doole yor njaboot gu sew màggagunu ci sa doole bariwul sa borom kër génn àdduna ba pare yàlla teg la nga am feebaru jalis Dakar ba social ñëw di la ñaanal ndimbal ba pare jox la fukki junni ak ñett 65000 waaw lan ngay ñaanal waa Dakar ba ak ñi ko jàppale ba mën a joxe lii. mu am barke waaye ñëpp ci bokk dëgg la Mbické baax na trop maa ngi nii amu fu ma jàppale bii moo dëkk la bi xaasi la ci man tey billaahi tey sax dama war a def aran def sax aw ma xaasi maa nga xam dimbali nga ma jërëjëf yàlla yàlla mu la ana xale yi ñu ngi ni ku ndaw sa xale bu góor bi mi ngi moom day yenn waaw day yenn bu ñu yenn ni mu dodo doo jëlee sama ordonnance yi wallaahi. soxna si maa ngi lay nuyu. kii sa dëkkandoo yow noo tudd. man Far sa kii dëkkandoo la. sama dëkkandoo bu baax ak borom këram ba mu fi nekkee waaye nag borom këram génn àddina lii daal ko mu yor ak njaboot gu sew. lu waay am jàppale ko ci xam nga jàppale ay dëkkandoo te su amuñu doole du sotti moom itam muy def ci mbokkam lu ñu am jox ko ba léegi yoratuñ dara luñ ko jox mu ne léegi man naan dem ci ñi xam ne nii ñoo ma tane buñ ma dimbalee lu ma am ma dem ci mi ngi nii demul woon tey ko jox ci lay demee lu waaye am daan na ko jàppale ngir yàlla bu ko jàppale day ah yàlla dana la jàppale ndax sonn na te jullit bu sonnee dana nga ko tàllal loxoom. ci néeru doole ak yàlla yàlla dana ko ubbi buntu xéewal waaye nag man maa ngi koy ñaanal nii mu yor njabootam gi yàlla na ko yàlla wéral ban toog nan tooge woon na toogewaat ko man loolu laa koy ñaanal ndax man dañoo caare lañ jóge waaye man ba ñëw fii waaye man daanaka ñoom sama genn wàll la wax dëgg sama genn wàll lañu ndaxte dëkk nu boo nekk moom tam baax taq ci yow du la ñëw dara ay gonam taq ci yow maam maam foo toll foo toll boo sañoon loo am jox ko ca ku ko jàppale rek nun nga jàppale yal na leen yàlla jàppale seen liggéey bi yal na barkeel yal na leen yàlla jàppale ku ko jàppale rek nun nga jàppale ak yàlla ak yéen ñun ñëpp yal na jërëjëf mbokk yi ku ko jàppale ñun nga jàppale di gën a dénk njabootam gu sew gi rek na ngeen gën a góorlu xam ne yàlla moom buy defar day mel ni ku yàq fekk yàlla da leen a bëgg a dimbali na ngeen wodd bu baax takk seen i sër góorgóorlu. bu leen soxla yëfi kenn sax leen ci li ngeen sax takkoo seen yaay ji seen yaay nag bu soobee suñu borom nit ñi den ko jàppale loolu ci man dinañ ko ci def te man am naa ci yaqin waaye gën leen a góorgóorlu taxaw seen wéyjur wi te xam ni amoo leen lu dul seen wéyjur ndax ñàkk boroom kër dafa metti boo ci boolee feebar jële dalaat sa kaw dafa metti waaye yàlla lu mu teg am na lu mu koy saafara ñu ngi ñaan ci mbaaxu yàlla yàlla na ko yàlla saafara yàlla teg ko ma leen ci tàllal ko yéen ñëpp képp ku ñu gis rek. na nga ci jàpp ci nu mu mën a gaawee Matar maa ngi la woo ci cas bi nga jàpp ci depuis Toulouse yow ak maa ngi la ciy woo ndax nit ku baax nga Mouhamed Amar maa ngi la ciy woo nit ku baax nga xaadim maam jaar bari nañu ba ci Malick ak bonne volonté yëpp maa ngi ñaan daal kaabi bi daal képp ku may seetaan rek nga jàpp ci te yàlla tax te xam ne dafa war a def jalis dooleem bëriwul njaboot gu sew la yor di njaboot gu jigéen nañ leen dimbali te yàlla tax man incha allah danaa fi ñëwaat. te bu ma fi ñëwaatee di nga xam ne ñëwaat naa fi soobee suñu borom tey lan ngay ñaanal waa Dakar Buzz yi nga xam ne am na jafe-jafe def ci yàlla ñu jox ko cent cinq mille tey fayal ko quoi. man leen di ñaanal li ñuy liggéey yàlla na ñoo xam lañ bëgg yàlla na ko yàlla defal kii ku ci def lu baax rek man loo def rek dama lay ñaanal ci yàlla te ko ñaan ko rek ci yàlla yàlla rek ngay tàllal say loxo te yàlla dogal lépp te moo ko dogal ba ngeen ñëw fii noo ngi ñaan li ngeen liggéey yàlla na barkeel moom rek laa leen di ñaanal. nga ñaanal waa Dakar yaay boy maa ngi ñaan bu baax seen liggéey yàlla mu barke li ma def nii ah kese ma ko xam. billaahi mu jox ma lii tey maa ngi nii tey aw ma woon benn dërëm billaahi suturaal nga ma yàlla liggéey bu barke. waaw yàlla liggéey bu gën a barke ñëpp suturaal merci. jërëjëf am internet yu Dakar Buzz lii moo nekkoon seen émission Dakar Buzz sociale di ci woo ñëpp rek aide Amérique soxna Awa Dia depuis maa ngi la ciy xaar yow tam Jili Ndiaye depuis Italie maa ngi la ciy xaar Malick maa ngi la ciy xaar bari nañ kaay bari nañ sama jàmbaar yooyu nga xam ne bari nañu ak bon volonté yëpp Fama Sène maa ngi la ciy woo tam di ci woo ki nga xam ne moom mooy sa borom kër nooy di ñaanal nag doomu sénégalais yi ci àll bi ñëpp yàlla taxaw leen te yokku leen ci micro bi Fadel bi ngeen tàmm na gis la ci cadre bi Seydou laa ci àndal di ñaan yàlla taxaw te yàlla defal ko jàmm lii moo nekkoon seen émission Dakar Buzz social waaye wéy leen di abonné ci Dakar Buzz di am lu may doon si waat nag muy yow kër bi nga xam ne yaa ngi toppaat sama vidéo yi du ma jóg ci di ko wax nanguwoo liggéey amoo looy ruus amoo looy jomb topp sama vidéo malade di leen nax naan leen man la moo gét maak Fadel ñooy liggéey loolu yaakaar nga ni ñun nga koy def waaye sa bopp nga koy def mën nga noo rëcc waaye mënoo rëcc ci yàlla ma xam ne képp ku lay jàppale bu la waxee da lay defal jàppale dinaa la defal Diez 144 Diez da lay ndax nekk ko lay dimbali nekkoo nit ku baax te amoo ngor ndax yaa ngi topp ñi feebar di jël seen xaalis yàlla gis na la te yàlla na la yàlla weer maa ngi ñaan yàlla na la yàlla weer ci barke yonent bi rek laa amoon ci lu may wax di wax ne daal yàlla yàlla def jàmm ci réew mi yàlla taxaw leen te yàlla yokku leen jërë ngeen jëf ku ko bëgg a jàppale émission numéro baa ngi ci baaru écran boo fa wootee di ko jot pour koo jàppale jërë ngeen jëf